te ni ñu ñëpp nuñ ko gisee Sénégal boobu ba léegi jotagul jouer ay match amicaux pour euh, préparer coupe du monde bi te gis nañ ne ay ay ay ay ay adversaire am ku si mel ne Équateur mi ngi jouer ay match amicaux defe naa sax loolu moom euh, xëy na tamit li gën a yombal loolu si côté euh, Équateur ñoom amuñu benn actuellement amuñu yenn benn benn compétition bu ñuy jouer à leur niveau. Euh, surtout di xaar coupe du monde bi ñun nag dafa fekk ñu nekk ci éliminatoire actuellement coupe d'Afrique bi Côte d'Ivoire 2023 bi nga xam ne Sénégal jot na joué ñaari premier match mi ba pare léegi nag ba match yooyu weesoo entraîneur bi Aliou Cissé seetlu na ne ba léegi euh, taxaw guñu taxawlaguñu préparation coupe du monde bi surtout di joué ay match amicaux moo tax mu defoon benn demande CAF di di wax kaaf mu may leen ñu sursoir euh, euh, ñaari match yi nga xam ne Sénégal war na ko jongante au mois de septembre pour éliminatoiru Coupe d'Afrique boobu pour permettre équipe bi euh, si période boobu mun a jouer ay match amicaux pour mun a pour mun a préparer Coupe du monde Qatar 2022 te yaakaar naa ne loolu CAF war na ko mën a nangu parce que CAF dafa war a euh, dooleel euh, ay ay représentants ku si mel ni Sénégal ak ñeent yeneen réew yi nga xam ne ñoo war a représenter Afrique ñu war a gën a mun a préparer coupe bi mun a def ay jongante euh, ak yeneen équipe yi nga xam ne dina mun a dinañ am style de jeu seen adversaires yi nga xam ne ñoom la ñu war a jonganteel si premier tour coupe d'Afrique du monde bi ñu mun a am ay match amicaux mun a pré mu gën a mun a préparer coupe du monde bi nga xam ne moom la ñuy jëm si mois de mois de novembre incha allah bi ñu jëm ci Qatar.